Baol Médias xibaar yu wér te wóor te dafa am lu ma bëgg bëgg xam. Mhm. te xam naa ne mbokki internet yi tamit bëgg nañ koo xam. Mhm. parce que léegi ne da nga ne ci membre fondateur yi nga bokk maanaam mhm. ci ñi nga xamante ni tey ji ndax ne nga Macky ba ngay ànd ak moom mënta si mënta mënta signaler. voilà <laughs> kon ça veut dire que tey Macky Sall toog taxaw war a laajaat troisième mandat yow nga taxaw. génnaat fee taxaw di sànni xeer Macky Sall te yaa ko faloon. non non non loolu du sànni xeer. xam xam nga constitution réew mi dafa nekk loo xamante ne bu bu ci lislaam dañ naan mooy suñu kaamil. xam nga faatia mhm. ak lu mën a xew Fatiha boo ko doon tari ba ci digg bi bëgg faa dugal leneen lu ci bokkut. Mhm. maanaam ki mokkal faatia bu koy bu koy jàng bu ci accès danaan la bokk ci. Mhm. kon constitution bi. ginnaaw dafa wax ne. kenn mënta def ñaari mandat yu tegaloo mm-hmm. te moom def na ñaar mm-hmm. kon mënuñoo fexe ba xaj-xajal leneen ci diggante bi parce que loolu askan wi mm-hmm. parce que alxuraan bible alxuraan bi euh, lislaam maanaam niti lislaam yi ñoo koy sàmm mu jaral leen seen bakkan bible ñi ko gëm ñoo koy sàmm mu jaral leen seen bakkan constitution Sénégal sénégalais yi ñoo koy sàmm mu jaral leen seen bakkan te dama cee bokk kon mënul def ñaari mandat mënta defaat beneen mandat loolu mënta ne xam nga am na ñoo xamante ni APR la ñu bokk. waaw mais bu ñu génnee dañ naan première bi boobu compte. non ñooñu. ñooñu non dañuy dóor martu rek. <laughs> parce que parce que dóor martu weesuwul nga xam li nga xam. Mhm. sa intérêt personnel tax nga di ko weddi. Mhm. loolu mënul ne fii bi ñuy watee référendum bi lu ñu waxoon ñoom ñëpp di ko wax lan la ñu waxoon mhm. ñoom ñëpp dañu ne woon dafa bëgg a vérifier constitution bi ba kenn duutu bi def ñaari manta yu tegaloo waa léegi ñoom bu ñu waxaatee loolu seen wax jooju amul impact askan bi du ñu ay dof ay nit lañu te man damaa bokkoon ci ñi ko wax ñi ko doon wax référendum bi hmm. damaa bokk ci ñi ko doon campagne di ko wax kon munuma d'accord loo xamante ne man Macky Sall du naan ma euh, lekk nga ba suur ma ne ko waaw mu ne ma wàccul ma wàcc mu ne ma tibbal seex ma tibb seex loolu du ma ko def <laughs> parce que du ma gën a goree askan wi it du ma gën a goree man li ma bëgg a mooy ban problème nga am ak Macky Sall. uma ak benn problème. da ngaa tëb a tëb rek génn parti li muy doxale ni muy doxalee da koo doxaliwut woon bi ñuy wut réew mi ni muy doxalee da koo doxaliwut woon bi muy yor première mandat olof nag nee na ku yor du saqat xëy na booba da doon yor mais man nit ki li ma wan laa mën a gëm bu demee ba wan ma leneen bokkut ak la ma gëmoon ci moom dama koy tege nee wax ko samay dëgg bu ma ko waree critiquer ma critiquer ko. foofu laa tollaan. sëñ Fallou audience bi euh, président de la Bokk Yaakaar yu bi demoon nga dem ma. lu tax non dem. parce que ah, loolu loolu du audience. Ah. loolu maanaam benn ña fa demoon ñoo forcé ne dañoo bëgg audience local ba avant local ba nëgëriñ ñi ngi ko doon sàkku ci moom mu bañal leen ko bi mu demee ba soxla leen nangoo recevoir. recevoir googu mu leen recevoir nag dina nanguwu ko woon démb ak bërki démb euh, loo xamante ne benn président de la république mosu ko def ci Sénégal Macky Sall moo ko njëkk a def ci région de Diourbel muy yor réew mi di leen compal xaaju ministre emploi amu fi ndaw ñi yëguñu ci seen bopp amul kenn ku ci yëg seen bopp amul beneen bi ci des avant local amul benn département bu mu benn sauf département de Mbacké kon bi mu leen soxlaa li leen woo loolu nag ñoom ñoo war a am xel ak xalaat xam ne kii dafa soxla waaye ñun biñ ko soxla soxla wuñ te bu am tey jii ñoom ñëpp mu recevoir képp ku ànd ca liste ba di daw guddi ak bëccëg bis bu gañëwaatee nam leen defoon la leen defaat nit ki nag buñ ko naxee benn yoon damaa yaakaar ne buñ ko naxaatee moo ko tey kon loolu waaye nax la waaw ñoom nag li ma la wax sànq trafic de influence bi ñuy def xam na peut-être loolu la Macky Sall xam ba moom it ne ginnaaw soxlawu ma leen du ma leen recevoir léegi soxla laa leen naa leen recevoir ñoom nag damaa jàpp ne am nañ fulla am nañ fayda. mais nit nag su fekkente ne yor ngam xel euh, ki lay woo am xel yaakaar naa bu waxee war nga koo dégg te lam leen wax leer na dem leen wuti ndam te leer na leen ñëw am ndam. loolu mooy yen demal leen ma ci terrain bi rek sonn leen bu nga noppee ma def leen ni ma leen defoon. loolu nag ginnaaw xam naa ko <laughs> audience boobu man amu fa place. yow su ma la déggee. dangaa jàpp ne président Macky Sall moom fii moom mënatu fi am ndox. nii ci département bi mhm. moom yaakaar naa ne mooy seul président de la république boo xamante dina yor réew mi ba jóge fi ba ñaari atam yi jeex. Mhm. du dégg mais audience bi. Euh, li ngeen kaas nii moom seul kese. mooy président de la république boo xam ne mas na ñëw fii ci Touba ñu naan bu leen ko yuuxoo du Senghor du Abdou Diouf du Abdoulaye Wade loolu nag ab liggéeyam la. <laughs> askan wi dofuñu département bi ay nit lañu. mais audience bi yow mënoon mënoon nga dem. puisque daf leen recevoir woon boo boo demoon nga waxaale fa li nga xam ne moom moo la naqari nga waxaale fa li nga bëgg mais nga joxewaale fa tamit sa xalaat. ci diwaanu Touba mais ñàkkul ne mën na am stratégie boo xam ne mën ngeen ko tegaat bu mën a convaincre waa mm, mm, waa local bi. dama ne fii euh, Macky Sall ku demoon di ko waxee da daa soxla jàkkaarloo yow rek yow lay jéem a convaincre waaye leer na ne ko. population bu Touba bii ak bu département bi. am déglu seen mënatu mënatu leen a convaincre. Euh, fii taxaw na fi ne leen tëli Sadio bi dama koy defar ñaata at saajo ak Taïf lu fa am Fallou Mbacké président conseil départemental moo ko xeex ba mu am fa. amul keneen tey xoolal ma diggante Sadio ak Mbacké bi ñu demee ci audience bi leen jël naa engagement dinaa ko defar ñaata at mu di leen ko dig. Mhm. lii mooy damaa soxla askan loolu këppatal la. olof nag nee na këpputal akus pepp loolu moom du ma ko ci balaame parce que dafa soxla moo tax mu ne leen tali bi danaa ko defar PUDC bi fii maanaam département bi lan la ci bénéfice o dara ah jógeel maanaam jàddu jëm ka boo jëlee tali kayel bi di dugg biir kayel ah diggante boobu waa dëkk ba ñu ngay bëgg a dee ah, ndoxum Touba mii ñaata at mu ne danaa ci def nangam ak nangam fu mujj ah bu ay pexeem joyoon sax facture yu cher la leen di andil parce que ya ab goroom yabal na ko ensemble muy kaas ne waa dañoo war a fay ndox Touba ba ko Serigne Touba sancee ba léegi loolu mosuñu koo dégg dégg nga waa Touba mën nañoo financer seen bopp seenum ndox mi ñuy andi lu ne jéem na ko ci bëgg waa Touba di fay ndox loolu antuwul loolu nag du du du du du kenn lañ ciy sant Serigne Touba lañ ciy sant ak waa kër Serigne Touba environnement Touba bi xool ko di mel. ana ana zone industrielle bi mu fi waxoon kenn gisu ko kenn gisu ko dafa am loo xamante ne aw askan mënuñu caa teg seen bët ak yenn kàddu yoo xamante ne ñi la fi nekkal ñi ngi koy wax waa Touba gi te dëkk ci biir Touba ngir ngir loo xamante ne dañ leen koy jox hôpital bi bam ko fi tabaxee kañ la hôpital bi dégg guñ nga benn ambulance maanaam euh, sonor dem fa. hôpital bi inauguré maanaam. kër boo ko inauguré ba noppi. Hmm. amul ndox amul courant ah ay yoog mbóot nekk fa noo fay dëkkee. waaw est-ce que du est du président Macky Sall maam ñi mu bàyyi fii du dafa mujj ñoom moom découragé wu ci ñoom ba. wala wala aussi loo découragé ci ñoom politique ñi la fi nekkal. Hmm. war ngaa def loo xam ne askan wi war nañ la sentir même buñ faalewut ko fi nekk yow ñu yëg li nga fi def. est-ce que tamit ñoom du ñu ngi def ñoom ñu yemale ko seen bopp tamit parce que des fois loolu lay am dama responsable yi mu fi nekkal. Mm. yëpp yi nga xamante ni yëpp ñi ngi wax koo ci wéetal ay jooy lay lay kii. ndax bokk nga ci ñiy xalaat ne Abdou Lahad Ka dafa war a démissionner mënul. no xam nga Abdou Lahad Ka falu boppam. Mm-hmm. sëñ Sidi ne ko téyel ma mairie bi. Mm-hmm. sëñ Sidi lañ jox mairie bi ba Touba. xalifa mm-hmm. général sëriñ Sidi la woolu sëriñ Sidi nag kilifa la. mënul di xëy ci mairie mu teg fa Abdou kon kooku. du ma nekk naan ne démission na wala yu demee noonu moo war a góorgóorlu ba bu ëllëgee bu toogaatee ci kanam sëñ Muntaxa du nekk war ngeen a góorgóorlu ndax seen diggante ko sant naa la de war ngeen a góorgóorlu la ko wax loolu nag ab soññee la mm. loolu moom moo ci war a tiire ay conséquences ndax seen diggante mairie bu Touba nag moom man mm. li ma ciy wax mooy euh, man dama ko def ne jumaa ji mm. su waxtu julli jotee suñ noddee ma dem julli ci maire Touba bu moo fa amee soxla dugg fi su ma ko soxla du fa dem seen diggante ak Abdou Lahad Ka ndax tax na euh, ba euh, ngeen mën di waxtaan. parfois non man euh, jaxasoo wuñu xam naa ko nag mais jaxasoo wuñu ah. waaw mais nag ay ay action am maa ngi koy suivre. parce que mhm. xam naa ne amul xam-xamu yor commune bu Touba parce que bu mhm. amoon xam-xamu yor commune bu Touba tey Touba nii mel. Mhm. ci li fi mairie war a def dina ko def waaw loolu nag moom kese mooy responsable tous les conseillers. ay responsable lañ parce que dama jàpp ne moom kese mënu di xalaat di def te ma benn conseiller ne man proposition bii def naa ko ci mairie bu Touba te exécuté wu ko man gisuma ko. Hmm. kon ñoom ñoom ñëpp ñooy responsable. kon pour yow conseil. xibaar yu wér te wóor te leer.